bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman aduna yaaka mën a war xëy si nga noo bal bi nga dóor bu doon fetal de ak kanoo aduna yaaka mën a war xëy si nga noo bal bi nga dóor bu doon fetal de ak kanoo soldaar bu mag ba dem na moo doon général ba daa taxaw di jiite guerre Montréal gaynde la woon gu tëx gu déggul aw jaat wudul ndigal ci sëñ bi kii moo rëyu fit sa yaatu jaay nga duna won nanu ginnaaw àdduna war wanu sawar yi moo ñaaw moom moo fi doon jiitu taxaw di soññee ba noppi jiite jëf-jëkki moo ràññee pas-pas ba foo ko teg mu romb foofa yitte ja foo ko weesu na foofa pas-pas ba foo ko mu weesu foofa yitte ja foo ko romb na foofa dix-huit safar jooy na la yaa ko fonkoon yaa tax ba tey nu xam ci lun xamul woon yaa tax fu weer wi feeñe ñéppay bernde ndax yaa ko jëkka def ci lun am firnde màggal bu daa ñëw nga wutal ko ay mbaar yu rëy yu seer yu taaru yow yaay jàmbaar màggal bu daa ñëw nga wutal ko ay mbaar yu rëy yu seer yu taaru yow yaay jàmbaar màggal bu daa ñëw nga wutal ko ay gëléem ak ay xarak ginaar ci lem yu ñu dul xam diggante ñaari keef la sëñ bu mag bi wax nga boole lépp def te ca boole wax diggante ñaari keef la sëñ bu mag bi wax nga boole lépp def te ca boole wax yaa jëkk wax ci daara ji un membre bu nekk un mouton ci bés bii ci safar yaa jëkk wax ci daara ji un membre bu nekk aw nagam ci bés bii ci safar njiit bu matee njiit taxawaay ba day rafet yow sa jëf sa wax dëppoo nata rafet njiit bu matee njiit taxawaay ba day rafet yow sa jëf ak sa wax dëppoo nata rafet lang fi waxoon ca santaneer ba tey ji ku déglu waat wax ja mel ni tey ji la tàmbulee ci sayxu abdul ahadi ba tey ci sayxi muntaxa muhammadi ñoom ñépp am nga seen ngërëm ci bu rafet te loolu yombatul sa ngor rafet ñoom ñépp am nga seen ngërëm ci bu rafet te loolu yombatul sa ngor rafet am fit te jom teg ca ko yàlla loola nga def te moo di fulla am fit te jom teg ca ko yàlla loola nga def te moo di fulla ngor ak ak fit wu jëmul ci yàlla tuskare lay jural borom fa yàlla yow jaay nga lépp yàlla moo waral tey sa dem gi tiis na tey murit yépp la jooy jàngal nga ndaw ñi soññi nga mag ñi taaral nga yoon wi jafalaat nga gaañi jàngal nga ndaw ñi soññiwaat nga mag ñi taaral nga yoon wi jafalaat nga gaañi kenn mës la gis mu toog di wax ci ay neen màggal gi mbaa bi moom xamul leneen seex abdulaat noon na ko suude naa la ak sëñ bu mag li lii du xiili daala Seex Abdulaay noon na ko suude naa la ak sëñ bu mag bi lii du xiili xaala moo tax bu doon jéem ci leneen nit du ko man dañ ko defar mu door a ñëw melul ni man seytaane galgal na ko jéem koo ca xabal def nay pexeem ba jeex mu gën koo dëgëral mburum sëriñ tuuba ma dee su ko daan doonul ku ñuy falang mu dal jaaxaan yal na ko yàlla dolli leer yu baawaan yu toll ni duusi géej di sotti baawaan nun ñi fi des nan takkuwaat te am jom te ni roy ci waaju baax xëy maye tànn jiital ki ñu teg fi suñ kanam ci ndigalal sëñ Muntaxa mooy maye ndam ahlan wa sahlan yuusu yow amoo moroom ku toppewul deesu la xëy teg ca kanam sëñ Muntaxa ne ko gis-gis la ca biir te la gis-gis ko ca biir wax jal juleer sëñ Muntaxa ne fu ko gis-gis la ca biir te la gis-gis ko ca biir wax la juleer yal na la yàlla dëgëral te woyofal yan bi nga ànd murit yi nuy doxal murit ndigal murit ndigal moom la nu wax tey bu mu laal suuf bu mu laal suuf la nu wax nu ànd ko sëñ yàgg lool mu yàgg wér di làqi nu koy xool nu àndu ko ak sëñ lu yàgg lool mu yàgg wér di di nu koy xool amina amina wa sallallahu ala muhammadin wa man walaahu amina amina wa sallallahu ala muhammadin wa man walaahu